asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal nu jàmm defal leen ko defal ko mboolem jullit dafa am benn leeral bu ma bëggoon a leeral boo ko defee nun ñépp nu ànd bàyyi ci xel kàddu gi defe naa su ngeen ko déggee da ko xàmmee waaye man la seen mbokk benn Omar Dieng euh, boo demee ci Facebook bi am na benn page bu ñu bind Pape Ben Omar profil ba page boobu nag page la boo xam ni profil bi ña ngi ca def photo kaaba gi ci suuf ñu bind ci ana muslim photo couverture ba ñu ngi ca bind bindum arab muy alquraanu wa sunna li ma ci bëgg a fàttali mooy page boobu du man maa cay partage ay audio wala ay video du man maa koy def man Ben Omar du maa koy def waaye nag am na mbokk wala ay mbokk yu cay partage samay fàttali te jàpp naa ni la tax ñu koy def mooy bëgg nit ñi jariñu ci fàttali yi waaye nag partage bu mujj booba maa ngi doon fàttali ni amut kenn ku mën a dugal sa moroom aljan aljanna loolu moom sama kàddu bopp la yoo xam ne maa ngi ko wax jële ko ci alquranul karim jële ko ci kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yooyu kàddu moom du ci jóg mukk waaye nag ka monte vidéo ba maanaam gannaaw ba nu defee fàttale gi am na ku jël fàttali gi fàttale gi sax yàgg na nag lool am na ku jël fàttali gi daal di koy monter monter ga nag mu jël ay photo yoo xam ni foto yi kilifay jàmbur la def ko ca gannaaw bi nag gis naa ay commentaire ci suufu vidéo bi jot naa it sax ay appel looloo sabab may leeral ni maanaam man Ben Omar du maa ko monter waaye du maa ko partager ndax loolu moom doonte ki ko def bëgg nit ñi jariñu ci kàddu gi la waaye nag lam mën a yàq ci daawa bi moo gën a bari ndax mën naa nuru tooñ teyit ki bëgg a ñëw jariñu ubbi vidéo bi gis nga def ci photo kilifaam loolu mën naa indi filistration ci moom ba lam bëggoon a déglu sax dootu ko déglu su boobaa leneen lay jur moo tax may fàttali ni yu mel noonu ñi nga xam ne ñi ngi jël fàttali yi di ko monte ngir bëggoo tasaare nanu bàyyi xel te sàmmonteeg àqi doomu aadama yi ndax nit ki jël photo jàmbur monte ko ci vidéo te amul ci ndigal loolu dafay doon ak tooñaange rawatina nag bu nekkee koo xam ni kilifa ak jàmbur la loolu na nga koy wattandiku bu baax Euh, man samay partage yépp boo ko seetloo ci Facebook maa ngi koy awale ci beneen page boo xam ne ñi ngi ci bind benn Omar amul Pape Ben Omar doonte page bi ma njëkk a ubbi man Pape benn Omar moo ci nekk boobu nag gannaaw bi mbir mi gën a yaatu fàttale gi gën di yaatu ci lañ ubbiwaat beneen page yi boo xam ni pour mbooloo mi yépp mën caa jariñu lañ ko tuddee benn Omar kon loolu lay leeral nu bàyyi ko xel bu baax su fekkee ki nga xam ni moo dugal fàttaligoo gi te monte ci ay photo jàmbur mu ngi dégg leeral gi mu dindi ko moo gën ndax fitna baaxut te it lu yàq baaxut luy defar a gën luy yàq sabab bi tax ma di ko leeral nag man mooy bañ indi frustration ci doomu aadama yi boobu façon it man duma ko jëfandikoo ci samay monte bu may monte vidéo maa ngi monte vidéo ci image yoo xam ne kenn du xam ñan la lay ñuul kukk boo ko seetloo wala kuy julli wala yu mel noonu selon ca thème ba may fàttali rek loolu lay monte waaye nag photo jàmbur yoo xam ne ñi ngi dund def ko ci vidéo te fii nu toll ci sunum réew doy waar lool loolu nañ ko moytu maa ngi koy moytuloo ñëpp loolu daal mooy leeral gi mbokk yi ni ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole nu defal jàmm ci àdduna defal ñu ko yowmal qiyaam defal ko mboolem jullit wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu